ñoom ñilee ñoo njëkk doon volontaire ci service civique national diggante atum 1999 jàpp 2000 mu di ay góor ak jigéen yi nga xam ne ni jotoon nañoo bokk ci projet d'appui aux communautés rurales ñu tuppee woon ko initiative de développement local ñaar fukki at gannaaw bu ñu paree seen service civique ñu dellu si ngir ñëw jàpp ci liggéey mi. ñun am nañu avantage wu njëkk xale yi ci service civique nekkoon volontaire boobaa léegi mat na ñaar fukki at chance boobu ñu am ak kàttan bi ñu yàlla may. ñu am ay jikko yu nga xamee ni boobu ba léegi defoon nañu ko si ñun à travers suñu ay euh, famille ñu ñeree def ko si ñun ak service civique mooñ tax ñu ne kon war nañu mën a ànd delloo njukkal réew mi. jikko yi rafet doon lu am solo ci aw askan rawatina ci jamono ji nga xam ne nii saa su ne ñu nàmmeeku ni am na lu bare lu ci lompoñ. Euh, loo xamee ni que ni euh, lu ñu gis lu ñuy gis la bis bu nekk ndax dinañuy gis bu ñuy waxtaan ci ci ci penc mi. ay kàddu yu nga xamee ni que ni tegg niwul du dana ñu gis ñuy toj ay bus dinañu gis euh, xëy na nit ñi dañ koy tuutal waaye tuutiwul ku war a taxaw feu rouge taxawu fa dinañu gis kenn ku ci nekk nu ko neex lay dawalee euh, ci ci tali bi danañu gis danañu gis danañu gis. ba tax na ñu fas yéene def seen kéntulaay kàttan ngir seen a mën a ant parce que mënuñu teg benn policier bu nekk ci ginnaaw nit mënuñu teg tamit benn imam bu nekk ci ginnaaw nit mënuñu teg tamit benn kilifa ci ginnaaw mais kenn ku ci nekk soo wéetee nga xam nga lu baax lii ndax lu baax la ndax lu jëfu la ndax lu dagat na ñun ñëpp ñu tënku ci. ñoom ñii nga xam ne ni ay volontaire lañu woon ci service civique national jàpp ni jikko yu baax day tax ba suñu diggante gën a ratax waaye tamit ñu tabax ab réew mu naat ba tax na ñoom ñi lee bëgg a taxaw ba bépp ma réew làmboo ak yu baax.